ci xibaar li ci jot a fës nag dañ koy dër ak Bassirou Diomaye Diakhar fay nak démb mu demoon fële eh, ca Mbour géej teew fa nag ginnaaw nag day bi nga xamante ne si nag amoon na fa fële xamoon ci Mbour ay ndaw yu ci bëree bëri eh, seen famille ñu ñàkk seeni doom ci géej gi mu nekk na loo xam si nag triste na trop ginnaaw nag gaal gi nga xam si nag yeboon na lu toll ci deux cent personnes jubali fële xamoon ci Espagne far gaal ko rek mu gisu ndaw yu bëree bëri rek ñàkk ci seen bakkan mu nekk nag triste boo xam si ne sénégalais yëpp yëpp yëpp rek ko metti bu ba a baax ba tax na moom mii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye demoon fële eh, ca mbuuxu gi ci pour rek daal leen ni masaw ci wo boobu nag si leen wax na di leen taxaw bu baax a baax eh, ci xëy mu ndaw yi mais nag xëy ndaw yi ñoo ngi ci mais nag du jékki-jékki rek ñëpp rek amandoo am xëy ñii dañuy am ñii di xaar mm, war a am nag patience moom ti kàddu yi nga xam seen yëkkati waale nag tamit ci ñi nga xam seen ñoom ñooy yóbbu ndaw ñi eh, ci géej gi mën daal ay képp koo xam si ne gis nga la ngay yóbbu nag dinañ jël ci yow ay daan yu mat sëkk te dina la teg nag ay daan yu mat sëkk yoo xamante seen di nga koy ndax loolu daal jàpp na rek mooy da ngay xaaruloo li nga xam moo di doomu aadama wala da nga mu nekk nag loo xam si nag président de la république yëkkati nag fi di leen jaajëfal baax te dina wax ñun wéy ji abonné